taalib yi bokki réew mi ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalul al cheikh Mouhamadul Mountakha al xalifatul aam muridiya xafidahu llahu taala wa raxaa mu jëme ko ci mboolem bokki jullit yëpp ak bokki taalib yi bokki taalib murid yi nga xam ne ñoom la sañ digal sañ leen a tere jëme ko ci mboolem mbokk julliteem yëpp min man yaqbalu nasihata min axiihi l muslim ndax ku ne xam ne ne Sëriñ Tuubaa lépp lu mos di wax ñëpp doo koy boole jëmee ko nag ci ñun bokk réew mi nga xam ne dëkkandoo moo ko boole ñoom sëriñ bi nee mi ngi nuyu ñëpp di ndokkee ñëpp ci weeru tëdd wi di weer wi nga xam ne mooy weeru koor di ñaan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 mu jariñ leen buñ ko déggu ñàkkuñ ko jëfe nag boobaa moom wàcc kon loolu mooy li nga xam ne mooy li li ko boole diggam njaboru Sëriñ Tuubaa gi kon mu ngi fàttali ci réew mi xam ne fan yii xew-xew yi bari na lool rawatina bakkan yi ci rot loolu nag nee na la ci jëkk ci lim ci fàttali mooy delluwaat suñu borom ngir xam ne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 nit ñi nañ koy wattandiku bu baax a baax te xam ne ku ko def ku ne sa bopp nga koy defal képp koo xam ne sàmmantewu loole itam bàkkaar ba suñ borom lam diggee woon euh, dara mënu ko dindi kon sëriñ bi nee na mi ngi koy fàttali ñëpp di ñaan itam nag ñëpp gën a bàyyi xel ci loolu lépp lu mën a indi fitna rek ñu wattandiko te xam bakkan doomu aadama diisaay bi ak li ci nekk nee na kon loolu ñu ngi wax ñëpp lu waay man ci dellu sa borom jéggulu ngir bàkkaar yi mën a wàññiku dellu sa borom ngir yërmaande yàlla mën a wàcce waaye itam lépp lu waaye mën a génne ci sarax ndax saraxkat balaa sarax bokk na ci li koy teggi kon li yunfiq su saati min saatihi wa man qudira alayhi risquhu falyunfiq mimma aataahu llah kon loolu sëriñ bi neen lool lay li ñëpp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 te xam ne bu fekkee lu baax lañ bëgg wala ñu bëgg yee nit ñi it war naa am feneen fi ñu ko mën a jëme wala feneen fi ñu ko war a waxee waaye loo xam ne boo ko waxee jubloo ci dara du may jéem a yàq pëseefu nit wala ngay saboté ay nit loolu euh, koo dëkkal te respecté ko sax te gëmoo ko ndax sëñ Abdou Lahad daa wax ne ku la yaakaar ku ne sam nawle waaye nag xuriyatu taabir li ngeen tuddee liberté euh, mooy wax sa xalaat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 boo ko jàllalee itam yéen yaar yéen yemu atte te in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu alxuraan dafa wax ne buñ la joxee benn information na ko vérifier ba xam ndax liñ la wax dëgg la am déet ndax euh, lam cee bañ euh, fatabayyanu an tusiibu qawman bi jahaala fatusbihu alaa maa mooy bañ nga joxe benn information boo dee ba ci mujj nga xam lañ la waxoon wérut loolu doomu aadama war na koy sàmmonte ci diggam ak boromam waaye war na ko sàmmante diggam ak ay nawleem doomu aadama ñu ngi leen di nuyu baax di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu